bokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw yëgle bu yaatu bi ñu amaloon ren jëm ci jongante mbindum alxuraan bi ñu baaxoo amal at mu jot tudde ko yaatal mbindum alxuraan c s moo yëgal ñépp rawatina candidat yi jotoon a déposé seen bind ne dafay ajandi boobu boobule ba yeneen yeneeni jamono li waral lu ni mel nag moo di tolluwaayu mbas mi di coronavirus lëmbe àddina te néewal jotaay yu xumb yi bokk ci li koy xeex ba waral ñu jël bile dogal C3S ngi fàttali ne warteef la ci moom mu sàmmanteeg yile dogal bàyyi ko ci waa kër docteur xamal candidat candidat yi jotoon a bindu ne déposé yi yépp agsi nañ te saa ñu jubluwaatee ci weer liggéey bi daañu woo mbooleem ñi jàll ci xaaj bu njëkk bi comme ni ñu ko daan defee C3S mi ngi ñaan ci barke alxuraanul karim sunu borom jële fi mbas mi ci lu gaaw assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu anta bi ni'mati rabbika bi majnun الحمد لله الملك الديان الكريم المنان خالق الإنس والجان وغافر ذنب من استغفره مسعب الخير في شعبان أحمده سبحانه وتعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمد واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله واشهد ان سيدنا محمد سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم اما بعد فيا ايها الناس قد علمتم ان الموت قريب والرب رقيب فما التسويف وقد مضى العمر وانتم في تيه الغفله تلعبون كم تسمعون المواعظ وأنتم عنها غافلون واعلموا أن شعبان قد أظلكم بأيامه الكرام فأكرموه ولو بثلاثة ولو بصوم ثلاثة أيام وتوبوا إلى الله وقدموا بين يديكم صالح الأعمال ولا تتبعوا خطوات خطوات اللعين الشيطان وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وفي الحديث قال شعبان يا ربي جعلتني بين شهرين عظيمين فما لي قال جعلت فيك قراءة القرآن bokki jullit yi moo ngi sant yàlla subhanahu wa taala di ko bàkk di ko kañ di ko sant ci xéewal yu mag yu bari yi munu defal xéewal yu bari bari waaye goo xam ni ëpp na xel ba mu waxal na boppam ne bu ngeen ko doon jéem a takk du ngeen ko man lu mu yàgg yàgg yàgg lu ngeen wàññi wàññi du ngeen man man man xéewal yi ma leen defal yi ma defal waxuma la jéem koo wàññi waaye benn boo ci jëloon benn boo ci jëloon boo doon jaamu yàlla sa giiru dund doo ko sant doo ko munoo doo matale sant ga fabal xéwalu bët képp eh, xéwalu bët képp fab ko mu defal la ci leer ngay teg sa tànk fu la neex di dem te laaju la ci dara tegul la ci dara te bu fekkoonte ne dara sikk na ci ba nga dem ca sa moroom doomu aadama ne ko defaral ma ko du ko man day jéem te dana la ca teg loo xam ni amaana doo ko àttan te boo ko àttanut sa bët yàqu bàyyi la sa bët yàqu moom mu defal la ko nga di ko dund sa giirub dund dara sikku ci dara mettiwu ci fu la neex xool te laajule ci dara kooku benn boobu képp boo ko doon jéem a sant doo ko man nu julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ni xéewal yi mun a defal benn la ci xéewal yi mun a defal donte mooy bi ci gën a màgg waaye benn la ci te mooy bi ci gën a màgg ndax moom moo tax mboolem xéewal yi mu nu defal nu man koo jariñoo ba mu mën noo jariñ tey jariñ mën jariñ ëllëg te budul woon mooma amaana bu nu jariñoo tey du nu jariñ ëllëg kon moom mi tax xéewal yi nu yàlla defal nu man koo jariñoo mu mën noo jariñ tey mën noo jariñ ëllëg yàlla na nu ko yàlla fayal sallallahu alayhi wa sallam di bàkk di kañ sunu jàmbaar ji nga xam ne Cheikh Ahmadul Xadim mi nga xam ni moo sacrifice ab dundam sacrifice ak njabootam sacrifice alalam sacrifice léppam ci lislaam ngir daggal ko buumi gàcceem ba sunu borom may ko ndam mu daggal islaam buumi gàcceem yëkkati ko ca kaw fombal koy danga ko ñam ba kii waykat wu mag doon na wax ni bi sëriñ bii ñëw booba islaam ba si islaam di jooy xàcc ba génn gàddaay ci sowu jant fépp mel na làmbaay lépp ñépp xam nañ ne noonu la lislaam meloon ba mu ñëwee moo ko delloo si fompal koy rangoñam yëkkati ko teg ca kaw te kenn mënatu koo daaneel jaaraama kooku yàlla na ko yàlla fayal bu nu jàllee loolu bokk yi ni ñu wax ni ñëw di waxtaane benn tomb bu yaatu boo xam ni tuuti lan ciy laal tomb bi nga xam ni mooy li a yitteel tomb bi nga xam ni mooy tax àdduna jag mooy tax àlaaxira jag tomb bi nga xam ni mooy mooy neex mooy mooy baaxal mooy neexalu dëkkandoo tomb bi nga xam ni mooy dëppale diggante nit ki ak njabootam tomb bi nga xam ne mooy neexal diggante nit ki ak yi dëkkandoom boobu tomb mooy wan mooy jikko te mooy tomb bi nga xam ne moom rek moo tax yàlla yónni yonent yëpp sallallahu alayhi wa sallam mi mu yónni ci noonu wax nu ni li tax yàlla yónni ma mooy mottali leen jikko yu baax yi innama innama la wax innama waxul ne bokk na ci dafa wax ni moom rek moo tax yàlla yónni ma innama bu'istu li utammima makarim al axlaq kon jikko rek a tax defar jikko dong nga tax yàlla yónni ko kon bokk ñoo xam ne jikko lu am solo la moom rek moo am solo julli aj màkka yi natt asaka yi lu may defal xol defal xol muy jëf yoo xam ni bu fekkoon te ni du lislaam nit ki da koy rus ndax day woyof moom sëgg ak siggi ak wëru xeer ak toog yendu ba suba ngoon jot lekkoo yooyu bu dul woon lislaam kenn du xam njëriñ li da nga koy rus jaahiliya dañ ko daan loolu nag mu teg teg la ko di la ko def loo nga di ko def di ko tàmm ba sa xol ba sa xol leer ndax xol saa su nit ki defee tomb bu baax benn jëf bu baax day defuk leer dem ca xol ba bu yàggee xol bépp day leer naka noonu safaan bi bu defee ah, bu defee ab safaan wala mu wax ko day defu tomb bu gàkk na toq ca xol ba bu yàggee day kaste xol ba leer duut ci dugg waliyaasu billaah bu jëf yi baax yi ëppee nag bari di bari di bari day mujj xol bi leer naññ defaru te bu xol bu xol bu xol defaru jikko defaru xol rek mooy defar jikko loolu moo tax mu ne dañ may yónni ngir ma defal jikko yi yeeyu yépp ay pratique la yoo xam ne day day koo def ngir toj xol ak defar ko ak leeral ko loolu moo tax ba sunu borom wax ni kenn yomal xiyaam kenn du fa jariñu kudul illa man ata allaha bi qalbin salim waxul ku fa andi rakka waxul ku fa andi julli waxul ku fa andi koor waxul ku fa andi illa man ata allaha bi qalbin salim al qalbu salim nag yaa ngi koy jële ci pratique yi nga xam ne moom la yonent benn woon muy jullee ko woor ak jëf yu baax yooyu ci nga koy def muy def leer di leeral sa ba sa xol baax sa xol set say jikko baax boo demee ci suñu borom mucc kon kooku rek moo am solo kon jikko yi nañ ko defar lu tumuranke nag ci jamono jikko yëpp yàqu na lu yàqu lu yàqu ci jamono ji nu toll jikko yi yàqu yi rek waaye su fekkoon te ne jikko yëpp sallallahu alayhi wa sallam andi woon mi ngi fi kon dara du yàqu mbokk yi nañ bàyyi xel loolu te defar jikko yi Sëriñ Tuubaa def na ko missal wax na ne Sayyidina Abdullah ibnu Abbas dafa wax ne ñetti jikkoo ngi nii yu nekkoon ca ceddo ya al jaahiliya islaama leen ci gën a yey ñetti jikkoo ngi nii yu nekkoon ca jaahiliya jullit yi leen ci gën a yey ba ca njëkk mooy ku ci amaan gan la nga mën lépp ak loo mënut da koy def ci teral ko ngir teral ko ngir yàlla rek genn gan képp daana tax nit ki rey ak giléem genn gan képp daana tax nit ki reyu xabbon genn gan képp daana tax nit reyu gàtt gàtt loolu kuy mag sax fii miin nga ko ca sa bàyyi wala ca sa maam fu mu amee gan jàpp gàtt rendi wala jàpp nag rendi teral gan bokk na ci yi nga xam ne jikko yu baax yi nga xam ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ko fa andi woon sayid sëriñ Tuubaa neena na sayidna abdullah abdullah ibn abbas nee na jaahiliya moom lañ gënoon a ne gan jaraloon na leen lu ne ngir bu demee rek bég te booba ñoom gëmuñu yàlla nee na loolu nag islaam ci gën a yey ñaareel ba mu ni ku ci masaan denc ci jigéen ba màggata ci say loxo duutoo ko wàcc lu la mën a def ci adduna da nga koy muñ ndax da koy jàppe kenn ci yow ngir kóllëre nga ngir bañ ko sacrifice bañ ko wacc muy sànk duutoo ko wacc mukk kóllëre nga koy jàppe ñetteel ba mu ni ku ci amaan dëkkandoo mu am bor bor ba ëpp ko doole duutoo am jàmm te fa yow bor ba boo ko mënee fay da nga koy fay boo ko mënta fay nga nga di ko reetaan nga di ko eh, eh, eh, jéebaane ànd ak koo ca mën a àndal ngeen fexe ba fayal ko bor booba ba mu gore na yéen nee na ñetti jukki yi di koy ceddole ceddole wante nee na islaam ci gën kon nanu bàyyi xel jikko yooyu ana jamono ji tey ana jamono ji tey ku fi ja ku fi ku fi teral gan jaralati dara ku fi am gan bu ñëwee sa kër la mu bàyyi këram rek la fi fekk ka ci tane mooy ko soppi tuuti ci cinam waaye leneen moo leneen amu bàyyi këram rek la fay fekk gan yéemutul fenn ana jamono jii tey da nga gis ku denc jigéen am ak moom juróomi doom juróom-benni doom juróom-ñaari doom xëy wàcc ko xëy wàcc ko dàq ko génn ko sa kër boole koo ki doom wala nga téye doom doom ya ak tàggale ndey ak doomam ju ndaw ni mu xaraame te moo fees dell jamono ji ñu toll te ñàkk muñ rekk la ñàkk yor jikko yu baax rekk la waaye su fekkoon te ni jikko yu baax yaayu fi kon de danañ yor jigéen ñi sallallahu alayhi wa sallam lu ko jigéen deful amut lu ko jigéen wul amut daana ñaw daana fasi dàll daana daana daana dàqeeg sayyidatuna Aïsa di kuus ak moom ndaa ko maa la raw ak yaa ma raw am am am aw xew yëngu na ca ginnaaw kër ga ah Isa ni fi yokk mu ne ko da ngaa seetaan mu ne ko waaw mu tungoom ko tungoom ko muy seetaan di seet ba ni ko doyal naa am wàcc ko noonu la daan sallallahu alayhi wa sallam kenn defatu ko sa sa wax na sa bët bi suufa ngi ci ngeen ko man góor dooma yëpp jënd jikko ju ku ci jamono jii nu toll tey ku ci yitte wooti sa borom dëkkandoo ba di ko fayal amatul sa yoon ni wu ci buñ ko yóbbu ca kaso sa yoon du ci ne jikko yi amatut kon nag bàkke bokk yi nan bàyyi xel jikko yi te defar ko te xam ni moo nuy sowe tey moo nuy sowe moo nuy sowe ëllëg Sëriñ Tuubaa dafa wax ne Abu Laysa Samarqandi wax na ni ki ñaan lu fees ci jamono ji yaatu ci lool mu ne abu sa Abu Laysa Samarqandi nee na ki ñaan am na juróomi mbugal yu muy teg nit ba ca njëkk mooy njàqare lu dul dog ndax li nga li li li suñu borom jox nit ki ba nga ko dëgg naan da ngay gis mu di ko am sab xool di xëtt te doo ci mën dara njàqare li dul dog benn ñaareel ba mooy musiba moo xam ni kenn du la ca fay te sunu borom yonente bi sallallahu alayhi wasallam def ni ab jullit saa su ko sunu borom tegee musiba doonte déggu ko jëm la fàggul na ko ci ci yiw loo xam ni boo ko xamoon dana xeeb li ko dal waaye nee na ki ki iñaan ki musiba mi ko dal kenn du ko ci fay ñetteel ba moo di soxtu rabbu merum sunu borom sunu borom dalay mere te kat merum sunu borom lu mat a mooy tandiku la ndax sallallahu alayhi wa sallam nee na mooy tandiku leen merum yàlla ndax yàlla su meree day rëbb te rëbbum yàlla du yem ci borom day topp xeet day dem ba ca sëtëki sëtaat man mooy tandiku merum yàlla te ki ñaan day jural nit ki merum yàlla ñeenteel ba mooy faatu bi yool sa bi doo ko am ndax lii li sunu borom jox jaam bi ba nga di koy ñaani boo ko ko yéene woon yàlla dala cay fay ñàkk ga nga ko ñàkk yéene tax na su yool booba moom moom faat na la doo ko am te yool bu rëy la nga ñàkk ko juróomeel ba mooy dañuy tëj sa bunt tawfiq loo yóotu doo ci jot wala iyaasu billah nee na juróomeel ba mooy sa bunti tawfiq dañ koy tëj loo yóotu doo ci jot ndax loo yóotu yàlla ne la ba ma ko mayee diw kat da nga ko koy ñaane woon kon mënoo cee jot dara doo ko jot bi ci yees te mujj ci mooy du yem ak yow ci li nga waroon a am mu di la ko xañ li nga waroon a am rek mu di la ko xañ du ca yem waaye la nga jotoon a am dala koy xañ ndax sallallahu alayhi wa sallam dañu kiñaan day lekk aw yiw ni sa war a di lekke mat waaye kon yow yiw wa nga amoon boo ko kiñaan nga lekkee ba mu jeex te loo bëggatee am ñu la doo ko mën am yàlla mere la teg ca foo jëm wal iyaazu billah loolu la kiñaan di jur yàlla nañu ci yàlla musal kon nag bokk yi nan defar jikko yi te dabaatal ko ci gone yi tàmbalee ko ci gone yi nañ leen jàngal alquran nañ leen jàngal seen diine defar seen i jikko ba bu ëllëg si biir bu ñu la ñaanalee bu fekk la fa nga ne ëllëg si biir lu mu def ci yu mu fekk la fa nga ne waaye nañu moytandi ko njàngum àdduna képp doomi jullit nga dugal ko ca école tubaab muy jàng àdduna képp du mën a xam faatiya wala bu jàngee mu màggee mu di ko bind ci arafi tubaab di ko yàq loolu moytali moytandi ko leen ko nanu dugal doom yi ci alxuraan ñu jàng alxuraan jàng seen diine jàng ñu yar leen yarub diine yar leen yar bu baax buñ ca jógee lu ñu mën a jàng du leen wàññi dara yal na ne yàlla jubal